Masar ràññeeku ci xumb lool entre jëndkat yi jaaykat yi marchand ambulant yi transporteur yi garagiste yi kenn amul sax foo dox tranquillement jamono toll ak mbas bii di coronavirus euh, ñu xëyee am trois cas communautaires ci suñu ay information dem nañ sax ba ni euh, benn ci cas bi jaaykatu ndékki la fii ci station Kër Masar tey ñu xëy ñu interdire lépp luy euh, jaay ak jënd ci station bi interdire stationnement bi gars yi bañ fippu ne buñ jaayul wala buñ jëndul duñ am luñ yóbbu ci njaboot ga dóor ak dàqante ak policier yi ñu dem xool. fu mu nekk nii moom bu ñu jaayul moom day metti si ndax ku ku si nekk nii da ngay jënd pour dimbali say njaboot di jaay pour say njaboot boo jaayul nii. te amoo ku lay jappalé day metti ndax ñun jigéen ñi ñun ñoy jappalé suñuy njabot ñun ñoy jaay di di dimbali suñuy njabot bu nekké amo jëkkër ngay dabar dabar ya pour dundal say njabot ni so amul loy jaay yak say njabot day metti ñoo na Kër sar bomb la dañu xaar bam toj ñu doora jël suñu way lool lool habitude sénégal la buñ na dee ak yor fé duñ jël benn matuwaay dañu baye ba kenn dé ñaar ñet ñu doora a leuré ah, l'heure fekk l'heure yàgg loolu dal moy problème bi mais wax dëgg yalla man mom personnellement andana ci quoi parce que man dama gëm ni le meilleur solution état bi xam na ko mais duko jël meilleur solution mo doon tout le monde reste à la maison. xam nga aduna day toll fo xam do xol li arranger borom keur xam nga looy xool li arranger dekk bi ndax dekk bu nit ñi dee ba jeex dekk bi am tu njëriñ te li gis nga li muy ravager ci aduna bi manam fever la bo xamne man na ray ku ne suñ fi nek nan man sayer sama dépasse ñu xamnañ xam dëkk bi dépasse dañ koy lijjanti ci quotidiennement mais suñu xool lu mu arrangé rek ba tax ñu war ta kër defuñ ko ba ñu xaar xaar xaar ba dëkk bi yëpp dee léegi dëkk bi kese amul njariñ léegi balaa ca yàgg nag lii mooy meilleure solution ko jël parce que xam na ne nit ñi saa bu ñu xëyee dañ jël dañ ci bi moom arrangé wul kenn fi ne kay li ngay jéem a lekk rek xam naa kay nañ ñaan yàlla mu def semaine waaw ndax ay borom njaboot lañ ay ay chien de famille lañ yaakaaroon li dul place yi nag sant yàlla daal sant nañ ñaan yaa ko fi yàlla jëlee rek ci barkeb Sëñ Tuubaa euh, ñaanuñ ko mais bu semaine nan ngeen di def pour débrouiller pour dundal njabot waaw waaw ah, xana comme yalla def doon nañ liggéey suñ ñaari def ci def li peut-être mën nañ rek mais dana metti ndax ñun commerçant xam rek. ñu euh, euh, euh, station Kër Massar ngir situation parce que gis nañ arrêté nañ bépp activité na fi. waaw effectivement. Euh, démb la autorité yi kilifa euh, département bi muy préfet département Pikine c'est la jël ben arrêté euh, pour grand point Kër Massar ak li donc pour jël mesure ne fi bon amati ben stationnement auto ak ay charrette ak yoyu mais aussi commerce bi nga xamné mo fi indi nit ni pour ñu ñu dakal ko donc à partir de de taille donc ce la ñu avons fait opération pour que les euh, mesures nous respectent C'est ce que nous ñu depuis 7 heures avons avons la compagnie gendarmerie bu et le euh, renfort LGI bu Mbao am renfort aussi bu la compagnie Dakar ak aussi bu Diamniadio donc pratiquement nous euh, presque 150 gendarmes

Euh, opération bi est-ce que donne lu lu yomb parce que euh, gars yi dañuy wax ne len len leen fi sen seen ci lo len waaw c'est vrai que d'abord dañoo fi démb ñëwoon nañ fi man commandant brigade gendarmerie bu Massa, Massar euh, wax len ne préfet jël na arrêté sensibiliser len xamal len ni euh feebar bi lu am la ba nopi exina ci dëkk bi parce que. Carmassar enregistré na ay te cas yi Kër Massar enregistré ay communautaire la donc mu don la nga xam lu lu lu pré lu jare bàyyi xel la donc ñu waxtaan ak ñom xamal leen ni leen vraiment danañ jël mesure yi exceptionnellement ba vraiment xex bi gëna ñu suñu xel gëna dal ñu dogu mëna mën a dellusiwaat ci activité normale mais biñ xeyé tay amna ñu bëri ña nga xam dak respecté nañ arrêté bi ñom ubbi wuñu wala biñu ñëwé dal dinañu tej mais amna ci ñeneen ñi nga xamné par contre dañoo bëggoon continuer seen ay activités ñooñu nak amna ñi nga xamné interpeller nañ leen yóbbu leen brigade gendarmerie dinañ leen fay lo xamna ay amende li yoon wax dal dinañ ko si def. Euh, daani paiement amende rek la. wa amende lay doon euh parce que li à chaque fois danañ koy dañuy bëgg opération bi ñu maintenir ko fan yi yëpp. Euh, je pense que donc je pense que pour le moment euh, sanction sanctions la euh, en rapport avec la mairie donc mais je pense que tey changé visage pour fi avec vraiment un changement euh, mu nous avons ñu rond point bi changement bu mais euh, Kër Massar na ay cas ndax da ngeen di confirmer le euh, benn ci non xam aussi bon nous avons identification donc Docteur suivre donc nous mais te cas yi ci nekk euh, ni nga xam ne la ko ministère de la santé di saytoo ñi ak district en rapport ak district sanitaire bu Kër Massar ñi ngi ci noonu lañ koy doxale fii donc ñi feebar ba pare bañ testé leen positif yóbbu nañ leen ci centre de traitement yi ñi nga xam ne ni ay contact lañ euh, defal nañ leen ay test ba n'opi euh, yóbbu nañ leen en quarantaine donc loolu moom euh, niñ ko war a doxale yëpp doxale nañ ko pour protéger population loolu vraiment amul benn la nga xam ne amul euh, wàcc nañ ko ci li ñu xam ne noonu la kilifa kër docteur yi sant ñu defe ko noonu